366 partis 366 yooyu euh, juróom-ñaar fukk rek mooy ñi nga xam te am nañu adresse yu wóor te dafa am loo xam ne maanaam dafa dafa leen war ci wàllu at mu jot ñu mën a déposer ay bilan def ay seeni activité ak ñu ci bëri ñu ko def donc il faut que ñu rationaliser wàññi loolu déjà euh, réforme constitutionnelle bi amoon déjà 2016 waxoon na ne il faut que ñu xool nu ñuy tëggaatee parti ñu wax modernisation système par partisan loolu bu ñu ko deful mbiru financement bi dana compliqué parce que 366 partis boo leen bëggee financer loolu day jafe donc il faut que ñu ñu ñu ñu ñu yamale xool ñu am par exemple tey fukki parti wala fukki parti ak juróom xool ni nit ñi di regrouper par affinité politique wala idéologique bu boobaa mbir mi dina gën a mën a yomb ensuite ñu tenir compte ñi ñu jot dem élection résultat yi ñuy am comme ça ñu xam quand ku ci nekk noo toll bu ko defee financement bi dina gën a yomb mais loolu yëpp je pense que waxtaan bi Euh, dina ko mën a leeral